fierté nationale et une fierté internationale opération goqi premier ministre nee na ku ku logoon di nga di nga mm-hmm. goqi mm-hmm. c'est la même philosophie que j'ai man dama gëm ne réew mooy ci cadre jubal bu fekkee dañ laa dénk wóolu la moo tax mm-hmm. te yàlla bu defee ñu dénk la tu dois pas décevoir les ngay gis rek nit ñu fal ko ay mbokkam yëpp commencé fecc ay mbokkam yëpp commencé sabaru. c'est dangereux ay mbokkam yëpp commencé nguuru mais ça c'est dangereux. c'est dangereux bu ñu la falee da nga war a tiit faluñu la pour t'enrichir mais on t'a donné une chance pour servir ton pays on t'a donné une chance pour inscrire ton nom dans l'histoire comment vas-tu maintenant inscrire ton nom dans l'histoire soit ça sera positif ou soit ça sera négatif et la responsabilité le patriotisme voudrait tey bu ñu la dénkee parmi tant de millions de sénégalais ëppoo fi xam-xam dàqoo fi jàng mais yàlla moo la jagleel chance boobu pour nga servir ce pays donc vraiment da nga war a wane le bon exemple ba ëllëg. Mhm. bu ñuy lim dinañ la lim. et ça sera la fierté de ta famille. et ça sera aussi la fierté de ton appartenance yaa mën a xam groupe boo mën a bokk. Mhm. donc opération gox yi. waa kër Macky Sall li ñu pasar pasaree alalu réew mi dafa bëri li ñu pasar pasaree alalu réew mi dafa bëri et je donne un exemple exemple bi may joxe mooy Mansour Faye le goro national et international de Macky Sall sàcc la c'est un voleur et on a les preuves xam nga dem nañu justice bu yàggul ñun ax moom ah, mais lan moo tax justice jox ñu dëgg c'est parce que Mansour Faye c'est un grand voleur sàcc bu mag a mag la te sàcc boobu du moom rek mais épinglé est-ce que tey tekki sàcc. waaw ah, mais sàcc la on a on a montré les preuves yow surfacturation luy jar cent franc nga ñëw jëndee ko deux cent loolu càcc yërëmul askanam il s'est enrichi sur le dos de la population yet bi da ko war a dal ku ci mel ni Cheikh Omar Anne bi nga bi nga tudd. Mhm. mais Cheikh Omar Anne dafa détourner les biens les deniers publics bi muy nekk université Cheikh Anta Diop ñaata rapport ñoom ñoo ko épinglé Macky Sall teg ci concam et j'interpelle le président de la République Diomaye bu mu protéger kenn et l'affaire de Cheikh Onaz le ministre de l'hydraulique Cheikh Dieye Cheikh Tidiane Dieye sama grand la nag yàgg nañu man ak moom yàgg nañ trop c'est avant même Macky Sall ne vienne au pouvoir sama grand la dañ koo jiiñ directeur am moo ko jiiñ moom moo war a joxe réponse mais warul yónni kenn muy ñëw di ko tontul bon affaire boobu na ko leeral. Mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. nous voulons la rupture. nous voulons un Sénégal exemplaire. on veut plus les mêmes pratiques yi doon am au passé muy amaat yooyu dafa war a jeex. Mhm. la jeunesse. le Sénégal a tellement eu espoir à son nouveau gouvernement. état bu bees bi askan bi def ci am yaakaar trop trop trop te lépp loo xamante ni dafa ñuul ci soow mi nañ ko seppi ba mu set wecc. donc c'est un message que je que je donne opération gox yi bu kenn protéger kenn Sénégal nañ ko nañ ko teg ci njub nañ ko teg ci jubal nañ ko teg ci jubbanti amatul sentiment mais nañ demee raison ou plutôt ko ñuy demee côté passion Sénégal lañu ñu am mooy suñu lépp nu aimons le Sénégal dañu bëgg suñu réew te dañu bëgg Sénégal bokk ci pays yi nga xamante ni ñoo gën a développé en Afrique on a la ressource humaine on a les ressources Mmh. actuellement Sénégal dafa nekk benn étoile à travers le monde ñëpp bëgg collaborer ak ñun mm-hmm. liggéey ak ñun te loolu pour mu mën a am yow alalu réew mi nga jël mm-hmm. ay milliards jël ko lekk ko yow rek alors que les gens la dañu bëgg faju bu ñu feebaree ñu mën a dem ci ay hôpitaux yu baax ñu faju am na jigéen ñoo xamante ni ba tey ñu ngi wasin ci kaw charrette ñu ngi wasin ci ci yoon bi difficilement parce que ci ay charrette la ñuy dugg am ñu sax ay moyens de transport am na gox goxaat yoo xamante ni ba tey amul courant. amul ndox. milliards yooyu benn nit lekk loo xamante ni ay millions nit ñoo ko war a lekk loolu loolu loolu dafa doy waar. c'est inqualifiable quoi donc waa kër Macky sàll dañ leen a war a càmbar waa kër Macky Sall. li ñu yàq ci alalu réew mi dafa bëri te xoolal ça sa nekk que la partie visible de l'iceberg ok <laughs> yaa ngi comprendre képp koo xamante ni tudd nañ la ay rapport jàpp nañ la ah. bu benn sëriñ intervenir parce que képp ku ci intervenir tu es complice na gars yi seetaan daal non mais gars yi on doit donner les bons exemples mm-hmm. ku sàcc alalu réew mi da koy génn dañ lay weer waruñu laa suturaal amul négocier naan woy boo indee lii ñu bàyyi la déedéet boo sàccee alalu réew mi li nga sàcc yëpp war nañ koo récupérer ba pare teg la ay daam man loolu laa gëm te affaire Prodac bi aussi Sénégal ñu ngi xaar ba tey de ma mbay Niang et bokk na ci ñi gën a indiscipliné yaa ngi jël Aminata Touré def ko moroom te Aminata Touré du moroomam yaa ngi waa kër Macky Sall yëpp laay wax man élément Aminata Touré la moi je fais de Mimi 2024 moo tax nga koy défendre ko Mimi Touré gars yi non mais c'est parce que Mimi. <laughs> Mimi Mimi mosul sàcc alalu réew mi. man Mimi bu nekkoon sàcc man ay 4-4 laay gaare bu may ñëw fii parce que kenn jënuma jege Aminata Touré. Mimi da ngay ñëw am na loo xam ne boo ko laajee mu ne la mënuma ko fu mu koy jëlee man sàccuma alalu réew mi loolu mënuma ko carrément donc ñun dañu am conviction àndax moom. Hmm. ok dañu am conviction am patriotisme gëm Sénégal ba pare gëm valeur li nga xamante ne nii tey jii valeur amatu fi boo xoolee ku mel ne Aïssatou Diop Fall dama koy gis muy attaqué sama maire bi na lijjanti musóoru ndeyam te bàyyi musóoru ndeyu jàmbur non non musóoru ndeyam ah. na ko lijjanti bàyyi musóoru ndeyu jàmbur am na ñoo xam ni ils n'ont plus droit à la parole man sama jabar nit di ko oo naan ko dama lay juutal sama jabar. Ah, non mais écoute écoute j'ai j'ai rien inventé ah. non j'ai rien inventé dama ne la actuellement yàq na deru journaliste yëpp. Mimi Touré du moromam non am na ñoo xam ni ils n'ont pas droit à la parole. yaa ngi journaliste la am na xam-xam. mu ngi diriger benn structure mais xam-xam man gisuma ci moom xam-xam. yow sa làmmañ setul. yow sa idée setul sa dara setut yaa comprendre. gis nga nit dignité ak honneur bu ñàkkee ci nit nit kooku amatul dara Aïssatou Diop Fall dafa yàq seen seen métier journaliste. non non da ko yàq quoi. en fait gis nga image. mon frère image c'est important. image. Ah. c'est important. yow nga war a nekk un exemple. xale yu topp sa ginnaaw. ça c'est important. exemple la parce que samp na société mu ngi liggéey. mu ngi employé mais mais mais samp société yomb na. mais am crédibilité société mooy jafe elle n'est pas crédible. Mimi du moroomam bugguma ci dugg bugguma ci xuus mais na xam boppam sinon prochaine fois bu may génnaat di tegax moom su may su ma koy waxaat dina metti trop quoi nit da ngay xam sa bopp. ok mais li mu wax Mimi moo la euh, kii nii. non Mimi moo nekkul moroomam et puis ñoom dañoo nekk di créer zizanie entre ñoom bu ñu sañoon Mimi Mimi day xuloo ak Sonko Sonko xuloo ak Jomaay état bi nekk à terre comme ça ñoom ñu mën a gaaw rebondir ànd ak Amadou Ba pour ñëwaat jël nguur gi loolu mënatul nekk dama ne la Sénégal dafa am forme dafa am yenn forme politique yoo xamante ni nii dootuñu ñëwati au pouvoir les Sénégalais sont éveillés divisés pour régner dootul amati Sénégal les politiciens professionnels dootul amati Sénégal gis nga la politique aujourd'hui c'est un engagement patriotique c'est un engagement civique mm-hmm. ñi nga xamante ni dañuy dundee réew mi dundaluñu réew mi actuellement les Sénégalais son éveillés mon frère d'accord classe politique boobu yëpp nañu dem retraite nous sommes dans une ère nouvelle ci aire bu bees lañ nekk ñi nga xamante ni dañu bëgg seen réew ñi nga xamante ni dañoo jàng am palto am place am métier Sénégal ñooñu la soxla mais soxlaatuñu ay politiciens professionnels mais euh, pour pour ma jeexal ak yow foofu li dal Mimi Touré ci ba muy def traque des biens mal acquis euh, ragaloo mu dalaat ñi parce que jamono jooju ñu ngi ko ci doon tooñ naan ko Mimi ture li muy def ci traque yëpp gisuñu résultat dégguñu résultat. Euh, tu sais y' a pas de fumée sans y' a pas de fumée sans sans feu. Aminata Touré musul recommander ne jàppal diw wala jàppal diw. yaa ngi comprendre et par par loyauté. la demande sociale. bi nga xamante ne nii moom la sénégalais yëpp laajoon ci track dem